seen site Dakar Matin moo leen di may seen revue de presse ak Pape Alé Niang bisimila Macky Sall ma nga ca France si ngan ngoo xam ne dañ ko fa invité yéene kaay bi di le témoin ne tapis rouge pour sa majesté Macky premier maanaam daal Macky mën nañ ko tëkkale jamono yii ak buur ndax nag visite bi visit boo xam ne la gëj naa am ca tàngu Abdou Diouf ci atub 1992 ba tax libération ne ah teraanga yu ne ñoo ngi koy defal Macky sàll ca Paris waaye nag yéen kaay bi du l'observateur ne lii di accueil Macky sàll bëri na coow lool polémique ndax nag président François Hollande ñëwul teeru ko ca aéroport bu orli yebal benn ministre am bu tudd Annick Girardin te kooku ma nga yor fonction publique bu ñu xool ci ordre protocolaire bi daanaka ma nga ci fukkeel ak juróomu place ba maanaam daal tekkiwul dara. ci dëgg-dëgg moom la ñu yebal ci aéroport mu tatagal dalal ki nga xam ne moo di Macky Sall bii di la témoin ne ak am ak i militant am naam seddoon na lool waaye militant APR da ñëw nañ ko dëral ko moquette bu beige Macky Sall nag ma ngay kokkali opposition bi ci waxtaan bu mu séq ak yéenekaay bi di Jeune Afrique yéenekaay bi di Écho dikk ci tey jii ñu ne ko Macky kuy sa opposition mu ne xanaa partie de la demande sociale ndax nag opposition amul Sénégal ñu ne ko mbirum Karim Wade mu ne du ma ci yëy du ma ci yàbbi dara laa ci dul wax ndax nag yoon àtte na ko ba noppi te nag Aliou sàll mii sama frère moo tax ñu koy attaqué waaye du ci dara Macky attaqué xalifa Sall na bu ko neexee mu dem moo war a jël ay responsabilité ci Vox Populi Parti socialiste sax ne xalifa Sall ak i ñoñom ñoom nañu xam ne majorité jël na décision dañuy toog bi Parti socialiste wala ñu génn ci biti Macky Sall seer na de seer na lool sénégalais yi Walfadjri ak Vox Populi jox kàddu te ji Mamadou Lamine jàlloo bi remplacé Malick ci Manko Wattu Sénégal mu ne Macky Sall bés bu yàlla sàkk lu toll ci 40 million dina ko jël ci kafagam ci badaxal ma daax loo xam ne moom rek ci ay mbiram lay dox 40 million bés bu nekk waaye kii di Mamadou Lamine jàlloo ci Vox li nee na ñun dinañ xeex de xeex processus électoral bi ba mu leer nu ñu yore suñu pétrole bi ba mu leer nu mu yore suñu gaz bi ba mu leer lépp dina leer ñu dem ca bi ak crise politique ba fa am Macky sàll di gàgganti Mankeur Ndiaye ci directeur info nee na Yaya Jammeh nañ ko jox cër ndax président la teewul yéen kay bi Le Quotidien nañu daal waa CEDEAO noppi na ngir defante ak Yaya Jammeh chef d'état yu bokk CEDEAO yëpp fukki fan ak juróom-ñeent ci weeru janvier dina dem ca bi ngir installé kii di aadama Barrow te tak bés ni ki tey CEDEAO moo yor kaaraange ki nga xam ne moo di aadama Barrow teewul réew mi quotidien na jàmme du dem de <laughs> jàmme du dem de lu mën a amit ba des Barrow ci boppam ci biir yéenekaay bi di laas moom ma ngay waajal après Yaya Jammeh noppi na ci mbiru Yaya Jammeh ndax nag ña nga samp comité préparatoire ngir xool investiture bi nu muy demee ñu ngi waxtaan seen biir ba xool ban gouvernement la ñuy samp waaye ki def buzz ci crise u Gambie bi maître El Hadj la ba tax enquête tey ji dàkkantele ko maître buzz ñu wax kën mooy El Hadj Diouf na bëgg na plateau télé yi lool boo ko gisee muy layoo comme comédien te nag mën na bett ay nit ci ay position yi muy jël lool teewul benn avocat nee kii di maître El Hadj xarañul de ci wàllu yoon waaye nag am ko sa wet moo gën ndax ay armes non conventionnelles yoo xam ne ñu bari jomb nañ koo wax lay utiliser législative 2017 xeex bu métti moo nar am ci biir APR Zoom info tàmbali duñ ci wax lenn nee na Géejawaay ñoom samp nañ Aliou Sall nee na Amadou Ba ministre de l'économie des finances na démissionné ndax nag bëtam nag tegu ko fenn lu dul ci fauteuil présidentiel bi tàggat yaram suñu gaynde yi nga xam ne ñooy def footballu plage coupe d'Afrique des nation ñeenteel bi yoon enquête moo ñu ko wax Nigéria la ñu dóor huit à quatre ni di wax ay secret ak lay rëccu ak ay defeem ci biir yéenekaay bi du l'Observateur nee na 2009 laa naroon arrêté sama carrière sama ñaareel combat ak Baboy parew ma woon ci wàllu xarfa fuufa nee na nag sama ëllëg mën na nekk ci loxoy Malick Niang wala Yékini Junior jërë ngeen jëf ci déglu bi ñu leen di dee soo jëm seen site dakarmatin.com incha allah.